ainsi pour les leaders politiques def nañ ko kon li ma waxoon yëpp am na waaye bi ma ko waxee ba pare sa ak moom te xam nañ ni ku jubla te xam nañ ni kenn du ko mën a influence te ni nga waxee ci moom dafa mel ni méngoowul ak ñun li ñu xam ci moom ma ne tey ñun dañoo nekk ci xeex te je désolé de dire waaye suñu principal adversaire ci terre bi ci jamono yi ñu toll du Macky Sall c'est la justice du Macky Sall c'est la justice ndax bu ngay annulé suñuy liste ci justice la koy jaare conseil constitutionnel moo annulé suñu liste ci lu dul dëgg ñëpp xam ko mu validé seen liste ci lu dul dëgg ñëpp xam ko kon justice boobu suñu adversaire politique la aujourd'hui bu buggee Euh, rendre inéligible benn opposant politique ci justice dafay jaare kaawu Khalifa Ababacar Sall ngi fi bu buggee sonnal opposition ci justice da koy jaare ci arrestation arbitraire kon justice boobu bu nangoo ñu gérer ko rôle boobu dafa war a nangu moom ak keneen ku mu doon nag wax ji dafay leer fii dafa am Macky Sall di gouverner am ñun ñuy opposé wu ku mu neex nag nga ànd ak Macky Sall ñun amuñu ci problème mais na nangu ñu ne ci xeet bi ñuy xeex dañ lay dugal ci xeex bi donc li ma li avocat yi wax justice bi li ñu leen wax juge yi mooy ñoom ñoo war a àtte fi mu toll nii ñoom ñoo war a doon les garants de la démocratie te tant que ñu ngi jël décision yi nga xam ne dëppoo nag li nga xam ne mooy yoon parce que fii ñëpp fi jàng na ñëpp fi jàng te kenn demul ci justice ay loxo neen kuy dem ci justice da dem ak ay avocat ay professeur université jàpp ci ñoom ñëpp même droit bi la ñu jàng te ñu ñii ñi ci ëpp ci ñun fac droit la ñu génne kon suñu liiree texte de loi mën nañu xam ni mu wax juge bu fi attewul lu dul yoon ñëpp xam nañ ko à commencer par yow mi ko atte xam na ne li nga atte du yoon mais tant que juge yi ñi ngi doxal yoon bi atte yoon defe naa réew mi apaisement dina fi am loolu mooy seen tooñee nañ teg tort bu ñu tooñee nañ ñu teg tort appliquer ñu la loi de manière claire et précise coow du am waaye bu loolu amul bu ñu tooñ te yàlla xam na ni tooñ nañ ñu tooñaat ñu tooñaat ñu te ñoom xam nañ ko magistrat boo ci wéetal mu ne la li xew fii du yoon li xew démb ak barki démb du yoon waaye tane na par rapport ak daan def moo tax coow li bëriwul ndax sursis bi ñu teg de ci ku ñu jàpp fii sa buntu siège ci manifestation war a am à 4 kilomètres d'ici jàpp ñu la ngay manifester jàpp ñu la nga woote jàpp ñu la nga ñu jàpp la ci condition yooyu kidnappé la yóbbu la ba pare or xotti sa orma député moo tax wax naa ko il faut porter plainte contre le procureur xotti sa orma député ba pare ñëw. ne la ab sursis lañ la jox loolu du yoon waaye ku jàpp 127 personnes bàyyi 127 personnes les 124 nga ne amul sax buñ leen mën a teg ci ay fait ñun dañu naan justice mii commencé jege liy yoon te bis bu ko jegee ba nekk justice boobu confiance bi am diggante ak peuple bi dañ ko restaurer parce que ñoom ils doivent être au-dessus de la mêlée li tax nag du ma sori ci loolu mooy xam naa ni am na nañu rendez-vous yu bari ci kanam ak justice boo leen waxee ci lu jëm ci lu rafet ñu ne dañ leen di essayer jël duñ ci sori waaye xam nañ ni rendez-vous yi ñuy xaar suñu diggante ak justice dina bëri parce que su dee ci la ñu mën a dëkk la ñu bëgg a dëkk jàpp-jàpp ba sonn waaye dinañu bàyyi bàyyi ba sonn xam nga 2011 Macky Sall. bi ñu jàppee benn waayam defe naa mooy sous-alimenté boobu naan daf may assassiné euh, bi ñu ko jàppee dafa ne woon na Ablaye Wade tabax ay prison yu bëri parce que ñoom ñëpp dinañ leen jàpp ñu wax ñu delloo ko loolu dina yokk li mu am ci budget dina ko tabax ay prison waaye du weesu séjour une semaine wala dix jours bu soobee yàlla kon wax nañu li tax ñu ne dañuy reporter manifestation bi yeneen soxna ay dem boo ñu wax yëpp ay raisons yu valable la parce que réew mi ñaar moo fi nekk léegi benn fànn bi dafa am Macky Sall nga xam ne wéet na tey làqatu ci gannaaw police am ak gendarmerie parce que xam na ni askan wi won na ko gannaaw mu jàkkaarloog ñun opposition bi ñun yoruñu police yoruñu gendarmerie yoruñu gànnaay. waaye lii suñu police suñu gendarme bi suñu gànnaay mooy askanu Sénégal le peuple sénégalais mooy suñu police mooy suñu gendarmerie mooy suñu justice mooy suñu gànnaay moo tax il faut ñuy dégloon teg askan woowu man waxuma kenn kenn ci Sénégal askan wi laay waxal parce que askan wi moo dem ba xam ni lii yeewi askan wi di leen wax lii mu leen di proposer mooy seen mucc donc askan woowu laay waxal wootewu ma dimbal fen askan wi laay askan woowu nag dañ ko war a dégg di ko déglu askan woowu dafa am lu mu waxtaan ak ñun ci fan yi soxna ay de cité na ay secteurs yu bëri waaye ëpp na loolu mënuñu ko lim fii la ñu jot ñun ci ay message ay appel ay yóbbante ku fi toog rek ci ñun ay junni junni junni moo tax ñu naan ñu ne faaw ñu dégloonteeg askan woowu moo tax li mu wax yeer ci njàng bi ci aji màkk bi ci tabaski bi ci liggéey bi léegi rek am na ñoo xam ne président Khalifa Sall président Habib ak soxna Aïda Mbodj ñoo leen doon recevoir bokk na ci ñooñu ay homme d'affaires yu mag yu mu mënul tudd fii waaye fii lañ leen recevoir balaa ñuy commencé réunion bi lan moo leen andi woon wax li nga xam ne mooy seen inquiétude ci situation Sénégal ñooñu ñëpp ñu ngi leen di dégg moo tax ñu ne dinañu fomm waaye man damay wax ni loolu ay raison la mais c'est pas les raisons fondamentales dégganteeg askan wi du am solo ndax ñun bu ñu wootee ñu génn askan wi génn kon askan woowu il faut ñu may ko nopp waaye li gën a ñor ci li tax ñu ne dañu xoolaat doxalin mooy option stratégique option stratégique nag du fii laa koy développé lépp mais naa ci wax lenn parce que suñuy militant suñuy militant ak askanu Sénégal bi muy dégg gis nga situation bi ñu dund li ñu ci mënoon am yépp am nañ ko ndax Macky Sall bi muy def lii muy def jàppul woon ni mun na jur lii mu jur ndax yàgg na fi éliminer ay candidature dara yëngatu 2019 dafay éliminer ay candidature teg ko ci ay parrainage ak ay inéligibilité élection législative bi mu éliminer ay candidature élection locale bi du moins ñu ñëw dugg ci élection législative mu éliminer candidature ndax moom ni muy fonctionner mooy dinaa def li may def te dara du ñëw dégg naa 2021 vingt 2021 bi muy yëkkati complot mu ñàkk fayda boobu bi ko gaa yi waxee daf ne daf leen ne nañ def li ñuy def te dara du yëngu waaye bi la bali safee daf leen ne tout est mystique bu jógee fan xam nga ñoom loolu la gëm moo tax foofu nañ ni lépp mystique la noonu la ko doxalee ci liste yi dafa gëmoon ni dina éliminer suñuy liste dara du yëngu waaye defe naa tey jii la Macky Sall di gëj a éliminer liste ci Sénégal parce que élection législative ñun suñuy liste bi ma ma dalal xelu Sénégal yi suñu liste yëpp ñu ngi am compétition am nañu liste nationale moom ay nit la ciblé mais am nañu une liste nationale mooy la liste des suppléants day def élection am nañu liste départementale sur les 54 départements 54 départements donc ñun suñu lépp ba mat bi mu toll nii lay woon problème am mooy Ousmane Sonko warul dem Déthié Fall warul dem Habib Sy warul dem Khalifa Sall warul dem Aïda Mbodj warul dem euh, euh, nu mu tudd Cheikh Youm warul dem euh, nu mu tudd ma Bousso même la Bousso warul dem moom loolu moo ne woon yitteem te loolu dina xam ne nag loolu du ci wàññi naan fataay boo moytu sax day gën a tar te gàcce gi ci lay gën a rëy dinaa ci ñëw kon ñu jàpp ni suñu liste c'est intact waaye tey lay gëj a éliminer senegal moo taxoon il fallait ñu jàmmaarlu ak moom wan ko ni mënul yombee noonu parce que lii problème Sénégal saa yu Macky defee nit ñi ne waaw teggi leen seen tànk bàyyi leen noonu ñu bàyyi foog ni foofu lay yem mu tegaat ci leneen parce que fu mu làmb mu nooy rek day continuer ñi xamul li tax ñi tax ñu doon xeex moo wax leen mag Macky Sall su la su làmbee mu nooy ñu ne ñëpp woote nañu ñëpp ñaan nañu bàyyi nga xamal ni ma nga ci prochaine étape kon won nañ ko ni moomul nit ñi te affaire bi mënul yombee waaye li ëpp solo li ma wax léegi li ñu waroon am ci situation bi am nañ ko muy ñaar yu am solo lu ci njëkk mooy réew mi wane nañ ni Macky Sall waa réew mi wan nañ ko gannaaw ndax li xew ci casserole yi keroog rek wane na ko Macky da na woote léegi ne damaa bëgg nit ñi génn dëgg casserole bu juróomi nit tëggee mu jaaxal te nit ñi joxuñu leen lem menacé wuñu leen loolu wane na ni Sénégal wan nañu gannaaw Macky Sall ñaareel bi am solo ci njàngal mooy au niveau international ndax gis ngeen àdduna bi yëpp ni mu traité situation Sénégal am nañu dem ba ba tuddee ko tyran tyran dictateur <coughs> de la presse internationale am na ñu dem ba tuddee ko tyran ci koo xam ne jamono ji ma ngay ngalaju pour wane ni moom am na dimension internationale war a tax ëllëg ñu jox ko sax Nations de déconstruction boobu ak yi la bu rëy ci parce que jusqu'à présent daf ñoo yàgg a féewale sur l'international c'est des terroristes c'est des gens qui respectent pas les institutions c'est des rebelles dem jaay ko Union européenne France jàpp jàppale ko ci dem jaay ko ñeneen ak ñeneen waaye tey àdduna bi yëpp xam nañ li xew Sénégal kon ñun li waroon tiire ci profitisation bi am nañ ko ba pare xam ngeen li ci des tiire nañ ko te permettre nañu ñu natt ci Sall natt nañ ko de li muy woote ne am na lu ko permettre tey ku yëngatu mu écrasé la amu ko bis bu askan taxawee day xam ni amu ko li mu yor sax ci biir jàpp ni ñëpp ànd nañu ak moom day nax boppam day gën a ñi mu àndal ñëpp ci politique ku nekk defar na la dossier ba téye leneen ku yëngatu ma jaar ak yow fu ma war a jaar donc ñoom dañoo mën a randal di randal rek ku nekk téye na la ci ay dossier neneen nag ñaar yi moo am ku yëngatu def décision sama biir ma jaar ak yow fu ma war a jaar waaye bu ngeen seetaanee ba opposition bi jàll yéen ñëpp kaso ngeen jëm moo tax léeg-léeg ngeen gis ay nit yoo xam ne kenn xamul kañ lañ leen gëjoon dégg ñu jékki-jékki génn nag di wax ay wax bu daanu sare gars yi ñu naan génnal wax de mais li am solo mooy natt nañ ko natt nañ ko ci dispositif de répression natt nañ ko ci fan la mën a yem ak appareil judiciaire ñu wax sénégalais yi nag nii fa ñu nii la ca mooy am na laaj bu am solo boo xam ne ñun ñëpp dañ cee war a toog ndax dañuy dem élection am déet Macky li muy def nii bokk na ci liñ ci mën a jàngat mooy bëggul élection am Sénégal waaye bëggul ñu ne li tax élection bi amul ci moom la jóge waaye du jógee ci ñun de le 31 juillet élection day am te bu soobee yàlla le 31 juillet Macky Sall perte assemblée le 31 juillet élection dina am Sénégal incha allah te 31 juillet Macky Sall perte assemblée moo tax comme li ñu waroon am yëpp am nañ ko dañuy dëgbal élection nañ koy def gëne nag mooy dañoo woo Sénégalais yi ñu sanctionné Macky Sall ko ni du moom mooy tànn kan mooy candidat pour candidat kan mooy dem élection ak kan mënul dem élection il faut que Macky Sall Sénégalais yi waxuma mu perte assemblée ci ay ñun ñu am ay 52 pour cent moom mu am ay déedéet il mu doon défaite bu spectaculaire te xam naa ne Sénégalais yi toll nañ foofu ñaareel bi mooy Sénégal est-ce que bëgg nañu coowal troisième mandat jeex Sénégal te bal du tàkk gaañu gaañu du ci am bakkan du est-ce que sénégalais bëgg nañ loolu parce que ñëpp a jaaxle tey ci lan mooy xew fii ak euh, septembre 2024 moo wax sénégalais yi nag ni am ngeen occasion ñu dakkal loolu ñu dakkal loolu te bal du ci tàkk xam ngeen fu muy jaare mooy le 31 juillet le 31 juillet ngeen génn voté massivement contre Macky Sall ndax bu ñàkkee assemblée nationale bi dootul wax ci Sénégal boo moytu sax dina takk ay bagages am balaa mandat bi jeex dem ñi leen di wax ni opposition bu jëlee assemblée nationale réew mi day bloqué ak nangam nag kooku ñu dëgg barki Dembo Ndiaye France opposition bi jël na assemblée nationale. États-Unis à chaque élection de mi-mandat boo moytu opposition jël majorité bi au Sénat te blocage du am parce que ñun ay responsable lañu waaye dinañu saytu li ñu yore réew mi yéen ñëpp xam ngeen ni càcc bëri na ci randal bi bëri la jël nañu réew mi jaay ko tubaab yi jël nañu suñuy pétrole suñuy gaz ak lépp joxe ko suuf si ñu ngi koy dagg di ko jox étranger est-ce que bëgg ngeen loolu lépp dàkk fi ma ngay jaar ci Macky Sall mu leer ko ni mandaam jeex na Sénégal te pour loolu am ñu ngi wax ak askan wi gis nga 31 juillet bu ñu génne woon liste yëpp sax benn politicien am si ñu jël ay nit yu ngeen xamul yeewi askan wi présenté leen voté leen massivement pour Yewwi Askan Wi kon waxu troisième mandat dootu ci am te bal du tàkk manifestation du am gaañu gaañu du am bakkan du ci rot kon ku am kudd waroo lakk te sénégalais yi am ngeen kudd waaye waay am ngeen kudd bu leen kenn nax ci leneen ak élection jot ñu sàcc xaalis réew yëpp ñëw di leen ko jox naa leen voté leen am ngeen kudd te 31 juillet la bu ngeen defee li ngeen war a def nee naa leen 2024 février 2024 à 20h Macky Sall takk nay bagaasam pare ñu euh, abal ñu ak soxoram ak mën a fayoom ak mën a dóoraateem ak jaay réew est bëgg ngeen ko ma ngay commencer le 31 juillet ci loolu la ñu sénégal Sénégalais moo tax ñu ne nag dinañu am lu koy natt. lii natt loolu dañoo bëgg lii ñu wax ak sénégalais sénégal yi tontu yi est que pare nañ pour loolu. keroog Aïda Mbodj dafa wax fii ne li xewoon keroog ci concert bi concert euh, casserole bi mu ne référendum la. gis ngeen ni concert u préfecture yi am na préfecture yëpp dañoo dajaloo def benn concert te benn préfecture rek la interdiction am jaadu. moom moo wax ni ñu lu lu yoon wax muy mu Fatick ndax moom nee na menace de trouble à l'ordre public benn ñaareel bi mu ne amul suffisamment de policier pour encadrer lool la loi wax ñeneen ñëpp wax ñu loolu préfet Dakar nee na déglu leen bu wax li mu wax am solo nee na risque réel de de trouble à l'ordre public ak des mal intentionnés dañuy jóge ci biti ñëw infiltré kon moom nangu na ni ñun du ñun ñooy les malintentionnés du ñun ñooy malfaiteurs yi nee na ay nit ñu jógee fële ñooy ñëw infiltré ñu waaye nee dafa am ñu préparé woon pour sàcc xaru tabaski jaay kat xar yi loolu la préfet wax nee na gars yi dañu bëggoon professeur di manifestation ñoom xam nga loolu Macky Sall war nit ñi amuñu njëgu xar liggéeyul jàppalewul Sénégal bi dañu ci amuñu xar mu ne léegi suñu manifesté woon gars yi dañuy profité sàcc xar bu ñu tabaski de boo ko sàcc xar sax amoo tabaski am nga yàpp na kon ñoom def nañu seen concert d'interdiction ñu wax leen ñun lan moo tax du seen interdiction moo tax def ñu de ñu wax leen askan bi du ñu déggante ñoom lañ ko bëgg a remplacer nag ànd ak mu doon benn référendum ci ñaari question yi ñu wax askan bi benn ñaari question yi ñu wax askan bi benn il faut que massivement askan yu wax ni le 31 juillet Macky Sall dina ñàkk assemblée nationale ci loo xam ne du am laam-laame du am contestation loolu dafa am solo ñaareel bi mooy ñu wan Macky Sall bi moomoo réew yow yaay tànn ku la neex yaay tëj ku la neex yaay dàq ku la neex yaay jaay suñu alalu réew ñaari question la référendum tontu bi ñu bëgg nag askan wi tontu ñu ko mooy concert de casserole bi ñu leen di woo ëllëg jeudi ëllëg jeudi xam nañ ni pare ngeen bu yàgg ñii sax dañ ñëwoon nañ ko def tey waaye nañ ko def ëllëg moo gën lañ ci bëgg nag mooy li ñu amoon jaww dañu bëgg lu ko mat ñett parce que dañu bëgg mu doon message bu gën a forati ci Macky Sall te muy mujjanteelu concert casserole bu ñuy def suñu weesoo loolu dañu yeewi nit ñi ñu préparé ci seen tabaski te ñu jógee foofu dëgmal nag élection locale ndax xam ngeen ni fi ñu toll nii tey fukki fan ak ñaar moo des ci début campagne bi 12 jours dafa jot normalement bés bu bi tabaski bés boobu la campagne bi war a commencé xaw ma sax loolu li ñu ko organisé. Mhm. kon suñu paree loolu na ñëpp dem préparer seen tabaski te yàlla may leen xar ak lu ñu xottee ak yeneen ak yeneen waaye nañu préparer campagne bi kon gën ëllëg vingt heures jeudi suba 30 juin à vingt dañu bëgg ku te ku nekk Nouakchott sax na nga dégg casserole yi ak cornet parce que loolu ëpp sax solo li li liñ doon bëgg def muy manifestation yi. waaye ma daanele nag nii Macky Sall léegi li mu bëgg liy ma ñëpp xam nañ ko ci Sénégal mooy troisième mandat. te jàpp na ni pour mu am ko il faut mu xeex ak ñun lu mu gën a gaawee. du Macky moo ñuy tànnal xeex bi dina am de. ma wax leen ko yéen ñëpp nag jeunes yi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi xeex bi dina am. waaye ñooy tànn kañ la xeex bi dina am de ñaanuñu mu am nag te bu Sénégalais yi defee li ñu war a def le 31 juillet xeex dootu fi am waaye moom dafa bëgg ñu déclencher xeex bi tout de parce que nu ñuy gën a jegee 2024 mbir mi di gën a bon ci moom moo tax muy def provocation yëpp. bu dee nag def na lu war a déclencher xeex bi suba suba suba na ñëpp préparé ñu xeex ko parce que mbébétam yépp mooy nu muy def ba teg loxo ci leader yi nu muy def ci loxo fexe ba teg loxo ci liggéey leader yi am lu mu leen takkal pour préparer inéligibilité pour 2024 loolu rek mooy yitteem ay dossier rébellion fii ay dossier appel à insurrection commando spécial juróomi nit ñu ne ay cocktail molotov lañ doon def ñu ne ñooñoo ñooñoo waroon a taal réew mi tappale yooyu mu def ko ak procureur am boo xam ne safadi na safadi boo xam man keroog ma duggee ci tribunal dama rus quoi di interroger ah eh, yow yow sax di taal nga nga sol tëre yi <laughs> ah yow yow ngente nga doon dem ngente kan mooy dem ngente ak tëre yi safadi benn peeru safadi boo xam ne kenn musu ko ñu ne kooku mooy procureur Sénégal waaye ñu ngi leen di xaar fii. kon c' est pas que ñu ngi naan conseil casserole que bàyyi nañu leen méthode de lutte bu nekk ak fi ñu koy utiliser waaye nañu dànk fanaanal rek parce que natt nañ ko xam nañ fi mu toll.